non, je, je que la, la, la, la, démarration parce que des, des fans, ils demandent qu'est-ce que vous voulez Qu'est-ce qu que Parce que quest que vous démarrez votre émission Je vous dis que c'est une salutation, on, bonjour, Parce que c'est l'international, l'émission, c'est multidimensionnel quand même. mais juste là. Donc, comprendre. a après. donc euh, ñu ñu commencé waat euh, ñu nuyoo. waaw ah. fii may waxantee ak yow daal. dëgg nuyoo rek dëgg daal keneen kalaat defee comme boobaak ah. kon ñu commencé waaw. asalaamaaleykum. kon di nuyu nit ñi. ça va di nuyu nit ñi. macha allah jaar ok merci beaucoup. donc ba tax na tey jii. émission bi tey jii dañuy dugg foo xamante ni. Euh, communication communication <laughs> dafa am solo. <laughs> parce que nekkee nitu international. waaw ngay def émission ay ni mais bu fekkee li ngay wax yow sa bopp. mais ah, non nan dem directement rek ci kii bi ah, donc tey jii. problème bi lan la lan la problème amul benn problème boo xamante ni am na ci lu dul Allô 12 dañuy def nan daan def aborder li nga xamante ni mooy les sujets yi nga xam ñoo xew ci jamono ji li xew na ci jamono ji ku ne xam na ka ndax euh, seize ba nga xamante ni moo doon seize rappeurs yi ndax Senghor fekk fi ay rappeurs Abdou Diouf moo am change fekk fi rappeurs yi. bi yàlla dogalee mu daal di créer benn. seize te moom sax yëpp Abdou Diouf mujjoon na leen def ay étudiants. waaw. ñëpp ñoom ñëpp regroupé leen dugalee université ñuy jàng matière culture mais siège bi siège dalal siège royal bi nga xam ne dëgg la Abdou Diouf ñaata étudiant la fi dajale ñu jëlee leen ci rab yóbbu leen université ndax boobu dañ ko doon wax waxtu ñaaw mu ni ñii dañuy dem jàngi ñu recruter leen yóbbu leen université. yàlla baax na jërëjëf. ah loolu amul ah Pifra waa Pifra sax mi ngi lay dégg. waaw mi ngi lay dégg xumaan mi ngi Euh, ñoom ñoo lakkaloon Abdou Diouf après waa kër gi ñoom jotoon na nañu génne benn single. mais Abdou Diouf da leen ni taral. dugal leen ca kaso ba. ñooñu ndox mu tàng changé seen culture. seen culture mooy jamonoy Ablaye Wade. mais non non ñoom jamonoy Abdou Diouf la woon. Abdou Diouf la eh, njëkk moo la benn affaire ñooñu Abdou Diouf la njëkk ñamal lan mooy liif ñoo leen moo leen njëkk a tucc tuccal. ñoo expliqué réew mi ba réew mi. ndekete siège ba ba mu ni ban buuru rapport moo ciy toog di leen doon piégé ku toog déggaatul la nekk te am. MC Laad lii di. waaw MC lii di xaw ma MC Laada xaw ma. MC Lida. MC Lida. MC Lida. moom moo njëkk génne album passation de service moo nekkoon ci courant bi. Mm, ci jal bi ci jal bi. wax nga dëgg nag. waaye ah. mais fin saison am passation de service bi mu waroon def defu ko. mais nga baal ma ndax. xumaan spectateur yaa ngi sax bind portable la ngi toj ñoom ñu ngi laajte MC Lida mi nga tudd lan la wayoon. nga may leen ma loolu indi MC Liza di Liza la ma wañ premier sponsor bi nga jëkk topp Liza la mu defal ko single single bi toj àdduna xam nga fi mu toll nii tur day topp borom. wool waa Liza kay yow kay directeur commercial Liza boo ko amee woo ko. du weddi li ma la wax. effacer question bi nga ma yónnee léegi nii ba ma laaj ka tafa. mooy fi may wax ak yow nag sëy effacer rek xam naa li ma la wax. sëy donc jërëjëf. di la xam MC Liza la du Liza MC Liza la. du Lisa kooku doomu Abbas Sall la macha allah rabi nekk ci États-Unis ñu ngi lay ziar di la nuyu moom mi nga xam day safoo allo 12. Euh, di la wax ne la siège boobu nga xamante ni moom la ñu tegoon bi Ablaye Wade ñëwee da ko defaraat siège boobu Abdou Diouf tegoon Ablaye Wade da defaraat. moo waraloon Fesman indi fii xeetu rapport yooyu ñoom di roos ak gars yi noonu. mais période bi may wax ak yow. Macky Sall da ci dugal xaalis bu bëri. 10 000 problème it. Hmm. avant Ablaye Wade di dem siège bi toog na ci benn mandat. 10 000 problème bu Medina 10 000 problème tey. rap li mu ci engagement yi mu ci amoon dix mille problème moo. ban album la dix problème génne. problème yaa ngi door di ma ko woyanti. problème yaa ngi door. boobu mën mi la def période mbënd mi inandation yu njëkk ya avant ñuy xotti bël bi moo rab ci mën mi problème yaa ngi door problème yaa ngi door dix mille problème les problèmes sociaux. loolu loolu sëy mi ngi ci réseaux sociaux bi tamit jërëjëf Touré man werante ah, gu ko laa fi bàyyi ba tax na ne nii ah, ngi toll nag ci période bi nga xam mooy période mag yi Sall président Macky sal na bi mu yegsee siège bi danga ko gën a defaraat buurewaat ko. Mhm. yokk fourrure bi. Mhm. daa ciy def li nga xamante ni mooy or ak jamaa. def ay nœud papillon def ci ay nœud papillon ak ay cravate ngir lan. artiste bi si toog nekk lu confortable ay siège yoo xamante ni ay V8 la. siège boobu nag dafa ànd ak nampaay gu rëy goo xamante ni macha allah rabi ay sponsor yu bare. dañ ko siège am na ci loxo ku mu nekk nii. jamono jii may wax ak waaw. parce que tey ah. parce que tey boo xoolee. tool yi na boo xoolee. Hmm. tey boo xoolee comme mel ne Ngaaka Blindé. waaw waaw King Baba. xale yëpp King Baba de. lu mu woy ma woy King Baba. King Baba booy boobu di niroog yow la te def log si sëy. Samba Peuzzi Samba Peuzzi woy King Baba de. ah ah Samba Peuzzi woy lool de. xamoo ci média bi. laa ilaha illallah bu baax Touré xam nga la mooy problème. kin Pape Samba Pussi woy. Samba Pussi Samba Pussi woy loolu Samba Pussi lii la way lii la way déglu déglu bu baax. Samba Pussi way la way. léegi léegi Samba Pussi boobu si rab la. lii funaan naa la mooy fecc mbaal yu njëkk ya lii dama ko maîtriser. léegi ñëpp moom la ñu jàngee fecc funaan baaba. lii ñi ko way dafa bari sax. king baaba nag moo way lii nag. king baaba bi ngay wax. moom tukulóor la wala. non moom king baaba tukulóor la. baaba mooy mooy tuk waxu tukulóor la. baaba mooy papa. waaw waaw waaw. yow dégg naa rapport yi di kii tukulóor naa ana baaba. dégg naa Fouta la ka loolu. est que amul ku ko way Fouta. ci kaw kii ñaar yi fi wax léegi est-ce que wuute kii woy nga dégg mooy Ngaaka Blindé doomi géejewaay googu macha allahu rabbi xale bi nga xamante ni bërki démboo njaay la def concert bu mag ca Cameroun ñu ni dénn waay moom King Baba dellu siwaat war a def ak Koffi Olomidé benn featuring bu doy waar daal jënd clipam defee ko Dubaï. en tout cas séntu fi mu nii xëccoo bi mi ngi nekk ci diggante kenn ku si nekk king bi ci ban fànn parce que boo xoolee king baaba ñi ko reprendre salanci bi ñi ko reprendre dafa bari king baaba moom dama ko doon king baaba am na sax ñu dem ba ba ba ni. ma yaakaaroon Baaba Maal la ko way sax. déedéet déedéet après laa yëg ni ndaxte du Baaba Maal xam nga dafa hmm. pulaare way bi king baaba waaw waaw. wuyu mais nag king baaba king baaba boo ko déggee dafa mel na xale buy chaque jour. bu dem guerre. Mm-hmm. xam nga ah xam nga xam nga boo ko déglu kiñ baaba. xam nga dafa dafa yéeme. dafa Zeyna la guerrière waaw waaw waaw Zeyna. la guerrière Zeyna la guerrière la. Ah nga dëgg noonu lañ doon dafa mel ne ñu jamonoy la joor bu njëkk bu daan ah, guerre yi. nan daan farax ni koo nga xam dañuy jël kaan rek. daal ni kiñ baaba rek son kiñ baaba. waaw dafa yow affaire loolu la xaw gën a yàlla bëri na sutura ba tax na la dafa mel na rek kiñ baaba dafa mel na jamono ji nga xam fan yee passé bi nga xamante ni toj nañu këru njaaga boobu euh, fële ca kii ba euh, moom dafa mel ne bulldozer nan dalee rek noonu la ko tëggee. léegi nag mu am koo xamante ni nag moo tudd euh, ki nga xamante ni macha allah rabbi. ñu ma way way bu bees boo génnee titre kii kii ñaari fan la def Touré def deux millions de. Eh, dégg naa ko Pape Sidi am na ci problème de. astafurlah un million cinq cent. Pape Kay Pape Sidi yéen a bëgg tolloo problème de. Eh, jibi baa da nga bokk da nga bokk ci fan nga mës a dégg réew mi tatafuma bi. di yokkal yokkal réew mi kat daa am ñu fi yokkal. kon baax jërëjëf boo yokkal la. dib nag nee nañ dix millions la de si clip. dix millions mosuma gis lu mel noonu. kooku këram décembre salon nga ci tabax benn kilibam. man maa demal demal waa mètre carré nga jox leen 10 millions nga xool. ah waa mètre carré. foo jaar am poxus boobu boo mën a nekk kay boo ko joxee waa mètre carré moom surtout yàlla boo woo banda banda banda banda mànga woon banda banda mànga sax xam. dib da leen 10 la ci def. nga dëgg de. ñaari chambre sonore moom moom moom li ma jaaxal. Hmm, hmm. clip bi lan moo ci 10 millions lan nga ci gis lu dul 10 millions. est que est-ce que du du du almet bi taal mat yi moo yokk prix bi ak. Euh, goxo goxo yi ñu doon xanaa almetu kofaar bi la fi xewoon bu mag bi. xam nga almetu waxuma almetu benn famille de almetu askan bi almetu furut furut mooy bu njëkk ba. kafaar furut bu ce que du boobu lay jënd 500 bi 700. ah doy na waar yi nag. ah wala itam est-ce que est-ce que itamit du yi mu sol. non non avant yëre yi matériel yi ndax dib ñaakul yëre. mais matt yi. Hmm. est-ce que matt yi jëlewuñ ko Nigéria. waaw yaakaar naa transport beeg Covid 19 beeg. waaw waaw loolu di ci import export beeg. waaw waaw yooyu tamit mën na nekk de lépp mën na nekk de. Hmm? lépp mën na ne en tout cas clip bi cher na trop. clip bi cher na trop parce que boo xoolee mais kan moo caméra clip bi. est tamit ñooñu jóge wuñu États-Unis. est-ce que waa Al Jazeera. Al na nekk tamit mën na nekk waa liggéey si clip bi ah, nee de ah de. moom dib lan la titre am tudd. dib titre am mi ngi tudd musiba. musiba yàlla yàlla ci yàlla moom lan la dib. waa dib lu tax mu métti yi titre waa ban musiba xanaa corona bee tax mu daal musiba. dib ay dib yaa diis te titre. mais ñun ñun ñun ñun fan yi waykat yi foog ñu xoolaat xoolaat wax. yaa ngi titre réew fan yi fan yi dem nga dem ak musiba nga dem nga. gaal yi li fi bare na. ñu wëlbati ko at dib ni musiba. kee daal ni king baaba. mais loolu noo koy feccee king baaba tey ji boo demoon ba di ka fecc king baaba ku sérieux moo ko moom. waaw tubaab tey bu dib demoon ñu ko làkk titre comme mu dem canal info. si tubaab bi ni ko sa titre lan la. mu ni musiba mooy la des problèmes. wala noonu la di jégalu. Euh, waa mooy la. ah musiba mooy la. musiba musiba en général mooy calvaire. calvaire waaw mooy mooy calvaire. calvaire ngay nga wax dëkk calvaire daal musiba. waa calvaire nga naan seen turu dëkk mooy mu. mais Mame la tamit clipam xam nga ñaata la. Hmm. Mame Balla Mbow moom 10 000 francs la dépense ci clipam. xanaa kooku Samsung ko filmé te wala techno bi. di wax ni sénégalais yi nañu préparé wu dem ci mètre carré muy nekk suñu partenaire yoo xam ne ñoo nekk sponsorisé à l'eau douze muy partenaire yoo xam ci wàllu suuf la ñuy maanaam boo bëggee jënd suuf mën na la toppatool ba nga am suuf si milieu bu baax bu correct sans dépend fi nga ko bëggee mhm. ñaare bitim tamit sëy mhm. nga nekk bitim réew mhm. bëgg tabax kër boo jokk ak ñoom dañ lay toppatoo ba nga tabax te am xel ñaar ci réew mi ndax yi fi jot a xew yàgg nga yónnee sa xaalis di ko lekk loolu jeex na tey ñooñu ñooñu ñooñu ñooñu li gën a am importance mooy li li ñuy wax litige ñoom doxuñu si les litiges litige mooy lan litige mooy lu jubul lu bari ay cambax cambax ay faux raccord faux signature yooyu yëpp ñoom dox na si litige. Mm-hmm. li plus en plus. ni moom ci lu wóor lañu taxaw ñoom ci lu. lu wóor kii baabu xam ko lañu yore ñoom. ba pare réew état bi agréé leen. waaw ba pare teg si sëy. Mm-hmm. Mm-hmm. boo amee tool. nga ko doon bay di ko bay di ko bay ba amatoo kàttanu bay ko. xam nga loolu day day. wala am na fa tiital ba amatoo fitu baykat fitu jëkk fa baykat waaw xam nga di gis di gis ci tool bi loo xam ne da nga <laughs> day gerte gu ñor boo ñëwee fekk muy muy ay ji. waaw xam nga soppali ko day am tool dafa am day am boo leen wooyee dañuy ratissé tool bi mm-hmm. nettoyé tool bi dindi mm-hmm. ëkk yi mm-hmm. toppatoo tool bi gor garab yi bu dee sa kër sax tiit nga yow ni terrain bii nga jënd am na rab bu bopp. waaw ñoom am nañu ay mara yoo xam ne spécialement dañu lay mocca rab ba génne la ko fa. ba pare sëy boo tabaxee kër timit nga am mm-hmm. sa immeuble. parce que mm-hmm. des fois da ngay tabax kër yoo xam ni. Mm-hmm. dayo bi ni muy toll. ay courtier courtier du ko mën a régler du ko mën a régler parce que sa dafay laaj courant bi waaw si sa ndox mi waaw asi sa décor kër gi peinture bi ban genre locataire waaw moo war a dëkk ci kër gi est ce que am na mm. assurance est ce que mm. jub na mm. loolu yëpp boo leen dénkee kër gi dañuy jël kër gi au sérieux ci band ak manga gasa téye kër gi waaw toppatoo la client yi fay dëkk ñen la bu lay fay ba pare teg si ñoom seen lépp eh! transfert bank waaw nga jot sa xaalis. waaw amul complication déedéet amul. ah ñoom lépp day am traçabilité. traçabilité traçabilité <laughs> mooy lu leer. ba pare taxi yow ñi nga loué sa kër mën nga leen bañ a xam sax doo leen gis doo wax ak ñoom. Mhm. ba yow ñu lay di ñu tasante ci mbedd bi naan la may ma bi. waaw amul yooyu amul yooyu déedéet ba pare nga nekk bitim réew bëgg jënd kër. waaw nga bëgg xam zone bu baax. Mhm. zone bi xam ne ne nañ ko. dafa na ndox mi. génne nañ courant bi notifié nañ ko zone yooyu boo ko bëggee xam ci réew mi ndax dañ lay jaay zone yoo xam ni baaxul. zone bu ñu assassiné. mooy zone bu ñu ubbi tali yi mooy xaaj ko defar ko ba rafet. yooyu boo ci bëggee xam. da ngay ngay dem ci waa mètre carré dina la wax fu baax Ndakaaru wala fu baax li jege Ndakaaru. ñun dañuy publicité wala contre publicité la ñuy def. déedéet publicité. assainissement ko dégg ñu koy wax ci dëkk yi. bi assassiné wul. Ndar côté Diamaguène. ah kon nag gaa yi numéro baa ngi noonu nga bëgg wax. jërëjëf léegi nag kon gars yi mi ngi noonu di wax ni nag mètre carré ñu ngi fi disponible na numéro téléphone yaa ngi noonu ñoom ñu ngi Facebook ñu ngi Instagram YouTube bépp plateforme boo xam ne njaay ak jënd am na fa ak wut ay leeral dina la fa bu ngeen ko gisee leer na ñoom seen logo nii la mel xam naa daa leen ko gën a gis lépp leer kon nag sama gaa yi. ñu wax dib waaw ay dib musiba yi ngay créé ci réew mi lan la. xam naa ndax lii nag baax na ci ab ab réew concurrence baax na ci. waaye kenn ku si nekk wax nga te dégg nañ la ñu ngi ñaan yàlla seen musique bii ñuy def yàlla ci yàlla def jàmm euh, defal leen ci sutura te ñu xam ni doomi réew mi lañu tey Bécaye Mbaye laa taxawee. Ah, tey fi ma taxaw. tey damay wax ba yàgg sama xel ni yar Bécaye Mbaye jàkkaarloo. non yow Dip sa xarit la. xam nga loolu ak Dip sama xarit la ak ngaaka yi tamit sama doomu ndey sama nit la ak keneen ki. Samba Peuzzi sama xarit la Samba sama xarit. ah. bàyyi naa ay ñoom ngaaka ak ñoom. dem parce que ñooñu doon am sa temps. waaw. du la nag kaay nag. saa ma posé sama xarit xamal na benn affaire de. muy dip muy ngaaka beneen de en dehors musique bi ñuy def ay nit yu baax la ñu turee. sañ nañ bon waaw ay nit yu baax la yow yaa ngi far lancement wu lancement boisson boobu nga xamante ni defoon nañ ko ak waa. PNL waa people noonu lim ñu leen di nuyu. waaw waaw gis ngeen ne ba dip taxawee. jox ñu cëru mag. jox ñu cëru grand frère. am na benn instant boo xam yuuxu nga ko mu daal di jooy. waaw tafu sa dënnu na sama grand frère nga bu ma yuuxu. parce que parce que ah? dip. Hmm. moom day vivre te dégg nga muy sonné. waaw waaw waaw moom en mode vivre la nekk. Hmm. di doo ko gis lu bari. waaw ngaaka belende tamit dajale na ngaaka yi. woon ci réew mi yëpp ngaaka yi woon ci réew mi yëpp dajale na. waaw regroupé leen. Ah, ba tax na fi mu ne nii 16 ba nag. ñu leen doo wax sànq ba tey kan moo si toog. fii ñuy wax ak yéen jot nañu information que Dof Ndeye ànd na ci ak ay xaritam dem toog ca siis ba yor ay jaaseem di xaar kenn ku nikka non Dof Ndeye moom kenn ko yëkkati parce que moom day dèjà boo nee Dof nga ciy teg. <laughs> waaw te xam nga loolu. boo ko boolee. <laughs> leen di wax ni leen Dof Ndeye toog na ci ak ak gàngooram. waaw waaw te ko ko fay jëlee. ko ko fa ñeme jëlee. ànd ak kon mi ngi noonu kon ñu ngi leen jox dig daje. waaw ba beneen yoon. ñu leen di wax ni leen dip dund gis ak ngaaka beleen ñoo bokk ndey ak baay ndax benn réew mi ñoo liggéey ñu ah bokk ñu ndey ak bàyyi. bàyyi leen communication yi ngay def di nax peuple bi dib gëj na gis ngaaka ngaaka ak dib gënu gëj a gisee de bokkandoon groupe whatsapp ngaaka bu mu déggee dib vocal la génn sa groupe. yëgoo la mooy russi di remercier waa maître carré di remercier ñi nga xamante ni macha allah rabi borom terrain yu baax yi ñi nga xamante ni macha rek rabi boo yoree secrétaire bu amoo koo ko dénk. boo ko joxee waa mètre carré euh, wax dëgg na xaal ñu defal la ci liggéey bu am solo. mètre carré daal fi ne daal. Euh, ñoo fi jamono ji ñuy wax ci ñoom mooy mm. ñanu seqaloon ca les mm. années passées. waaw ba léegi ñooñu kër yooyu ñu ngi ko yore amuñoo ñoom benn problème. déedéet te ñoom dañuy saytuwaat dañ lay toppaat. waaw waaw xoolaat yaa ngi ci jàmm bu waaw yooyu yëpp waaw. ndeysaan kon nag ñu sant leen te gërëm leen te ñaanal leen ñu yokk. kon ba beneen yoon jërëjëf